about 啊！

loolu baatil la saa yu si moomu kay la yi jagoom ji bilaay biram yi jagoom ji ki yaa fonk ndongo yi mooy ndeyu daar yaa fonk ndongo yi yaa fonk ndongo Mawlaay ba saa ñu dëgg dëgg jëme si dañu bàjjoo suñu sàkk suñu ndam yàlla fi yàgg lool soxna Aida Saliou sunu yaakaar tey ak ëllëg yàlla na fi yàgg lool te wér. jërëjëf na ci kutéel bi. moom ñu ngi santaat bu baax lépp dañuy jiital suñuy kàddu tuubal la te lu ñu xam ak lu ñu xamul ndax suñu matadi ak sa mat yi nga ànd ak ñun. bao ngày là phải quay lên xin cho cho tôi luôn đặt mông nhẹ nhưng mực tim mông chi không nên là ai mà này rồi đây là cái sự định rồi rồi đâu là ấy cả tùy sinh gần rồi lại đó dạ, nên là đi xin tu vào mais chaque génération aura la certitude que je ne suis venue que pour elle. Nous d'ailleurs, c'est une vision. Évidemment, le temps sëriñ bu mag bi de bi mu tollee ci ne wax daa bind ab xasaay wàcc bàyyi fi ay ay mag ñu ko ñu ko mate nga xam ni bi mu nee war dañoo xam ni ñu doxalee ba mbiram bi wuy sëriñ Saliou ñëw daje ak ndaw ñi wax sëñ Béthio ci kàddu yu leer ni ko yaay man naa yokk sëñ Béthio ñëw daje ak ay intellectuel wax leen ci kàddu yi leer nee na Aida ngi ne yaay man may yow yegg ci ne ku mu naqari naay romb nga tiire bala xool Aida ngi damaa xam ni ñun ku ñu bàyyiloon leetar kon coow dana bari torop ñun bu ñu yóbbante woon ay kàddu coow dana bari waaye ndokk borom jamono daa moom jamono xam jamono daa xam ñu mu jànkoonteel mu bañ ko ba wax ko daan ne boo leen gisee saa su ne su ma toogee di ko martelé mooy ëllëg a tax man la war ñu jóg waxin la waaye lii lu fi man may yow ak na mu bu doon lu sàpp la แต่ว่าเนต้องรู้รู้เวียนศัพทรู้เวรู้เวียนศัพบางเรื่องก็ไม่าใจนักเรียนโลกคำเรื่องสัพไม่ได้ยิ่งหนึ่มุ่เล็กคนที่มุ่งไปเห็นมุ่งนี่ยดีกึ่งไปยิ่งไม่ติดมือ่อยู่ไปยิ่งนั่งไปทจ่มีแง่แง่เนี่ยมุ่งนี่ยดีนักเรียนแต่มุ่งนั่งนั่งโลกคำเวียนต้องก้มนม่งไปท็นห้องอุศวเไื่อดมุ่งที่จะสร้างคนไอ้สิ่งเป็นคนละดวงกัน ci sa taal bay bopp yi yeesal kii ñëpp la bëgg barki Serigne Touba sa taal bay bopp yi jëmewuñ dañ la bëgg yow loo mel loo doxee neex nañ barki Serigne Backe ñu ngi sant ci am fii ñu la am ndax drapeau Serigne Backe bii ah yaa tax laalu suuf de Serigne Backe moo ne pour t'avoir mûrement pratiqué suffisamment pratiqué xam na ni yaa ko mën te yaa ko attan te yaa am xol amoo ñëpp a ngi fi wën bi maa fi wën bi soxna Fatou a ngi fi wën bi keneen rek keneen a ngi fi wën bi waaye ba taal la jotee yow mii la daal day dégg bañ dégg la neex dégg naqari dégg la sëñ Fatou nag dañoo jàngal nangu dogal yàlla mooy li gën a jafe nangu dogal yàlla. mooy li gën jafe waaye ñun dañoo dimbali ndax moo ñu def ba nawet bi dañu yéen bu ngeen demoon ba bëgg a keneen sax gëm bu ngeen koy gëmee ngeen doon am moo nañu yéen je vous marquerai à vie te noonu la ko defee ñun xam nañu keneen ñu seen bàccu moo de muy seen nit moo tax boo defee ñu gis seen bàccu boo waxee ñu gis sëñ Béthio boo taxawee sax ñu gis sëñ Béthio ndax yaay yaa neexal moo tax peut-être bi ñoo lay sant yaa neex nag sëñ Béthio mooy yaa neex Serigne Saliou waaye yow yaay yaa neex sëñ Béthio Serigne Saliou daa wax sëñ Béthio ku doon siyaare ndax ci am benn boo teewee te Béthio mu am ca fukk ku waroon siyaare jox ma am ca benn boo jaaree ci yow am ca fukk nga sëñ Bethio noonu la doxee yow ñaaraan ñu gars yi kat di leen tinul de sëñ Bethio fii ku mu fi jéggal sa yërmande tax bàcc sëriñ mu def mais jox la loolu te mën a jéggale te mën a jëndale da nga koy wax naan man sëriñ bi daa def dama dama dama gaaw am yërmande te loolu ñun dañ ko tuub yow xamoo lu metti déedéet yow jàmm yow nit ñi nañu nekk ci mbir na ñëpp fi yow loolu nga xam moo tax dañoo ñëw ngir war la suñu mbir ci màggal gii nga xam ni moom ku bëgg a wane màggal fii lay ñëw ndax Sëriñ Tuubaa kat màggalam gii li mu ci woote mooy ku ko santale yàlla ak cant nag sëñ Mathieu ñu ci dimbali ci yi Saliou ndax bu ko laajul woon question boobee nekk mu màgg lu ak cant kon dañuy sax ci alhamdulilah Serigne Saliou ne ko ak cant ren benn togg say ñam yu neex a bari di ko séddale te doo ci am xëj ak seen jublu ca di ku dee di Serigne bi mag woote màggalam bii ne képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nag ma ci santale yàlla di ci dale ginaar ba ci gileem ah di ci dale ginaar ba ci gileem kon la Serigne Saliou wax day ñëw muy la notion de sacrifice maanaam muy lewatal bi muy toog bi muy perte bi muy seen lële bi amul xeej amul seen waaye muy pétri pétri ñun ñëpp a teg bàtti sëriñ bi. sant nañu te ñu sa xew li waaw ndax li xew ren mës sa xew ren dañoo berndewu berndewu berndewu ba kéemaan sanaf yu bari sanaf yu rafet yi. daf ko fay lu bari barki Serigne Touba dara manqué wul condiment yi sant nañu gay ah waaw daf ko jox xewal bu ko ma def ay loo dañ lay loo ku jël dem da séddante <laughs> noonu nii nga ñu ko diggalee noonu lañ ko la sant ndax saa bu ñu defee man danga maa dimbali sama kër Dakar sa kër bopp bi nga xam saa yoo ma joxee ay xéwal boo leen seen sa kër bopp bi dama fay yónnee maanaam cëru kër ga ngir jëmmal ndax sëriñ bi ma yónnee Dakar booba sax maa ngi naan moom moo ñii mbaa ñu duñ dem ndekete yoo ndekete daanaka kenn dem dañ maa yónnee image yi waaye sama yaram bi da doon daw ndax mbooloo mu bari ma sant lool ci nii nga ñu dimbali ci nii nga ñu yërëm ndax ku ñu jox lu la ëpp dañ laa sedd bi ñu waaye yaa tax kenn fekk ñu bi ñu yërëm ñu xool dañoo yees barki Serigne ñu ànd ak kenn du ñu xool di ñu yërëm barki Serigne Touba da ngaa matali lépp suñuy dépense kër suñuy mukk suñuy takkaay lépp yow barki Serigne Bacco suñu oto yi essence bu koy dawal yaakaar ni foo leen nekk neex nañu lii nga ànd ak ñun ak ñu defal ci màggal gi àdduna moom lay waxtaanee sa nag sa gëléem bi sa condiment yi dara desul sëñ Beto dañuy seetaan naan nag yi ngeen di gis daanaka du ma ko dugal feneen koppar yi ñu may jox du ko dugal feneen ci màggal Serigne Touba laa ko duggee waaye moom nii nga ko defee keroog gëléem bi dañuy wàcc ñuy saraxolle naan moo lii fu xew nga naan nii la ko sëñ Beto bëggee lii mooy sedd xorom. waaw may seere rek waaw ci mbokk taal bi ñi nga ma boole sa jàmbaar yu baax yi waaw nga xam ni itam xam lu ñu benn yoon sa liggéey bi waaw moom li ma ko waxee rek jëf ji mooy njariñ bi te xam nañ ko te de nañu ba mu neex leen ndax lu ma leen woo lu ne ndeysaan dañuy wuy si ak bëgg bi ak yitte ji ak coxeel bi ñu koy àndee ak moom maa ngi sant bu baax a baax a baax waaw sa amin sa universel yi. sa polyvalent yi a des kenn a de ku ci tu t'es surpassé ku ci dem ñu ñaan 17 avril ñu jëm dem a a a taw Oh, total, ministre du 54 millions moom awa moom it di ndeysaan yokkale waa wàññi waaw sa wàññi cofeelu boobu bii aw ñoom it ndeysaan wax dëgg yàlla aw lu ñuy def liggéey boo xam ni léeg-léeg sax xaw a yëngal waaye da xam ni ndeysaan ay borom jom lañ ay borom bëgg lañ te cofeel lañ koy defee boobaa léegi liggéey bi sa noonu sob barki sëriñ ba sob waaw ci gam-gam ay minute ngay gam-gam boo paree jógaat tegaat ci te wax dëgg yàlla boole wuñ benn kanam te boole wuñ benn wax barki sëriñ ba sob ma wax ji moom maa ko ay gaaw leen yeeg yéex ngeen nag da ngeen rak yaroo seen sago yeeg farlu woo leen yeeg waaw yooyu yëpp dama ko ciy waxaale te dina ko tuubal waaye rek bëgg liggéey bi mel ni nga bëgg aw moo tax ñuy sant bu baax moom kàddu yi xam naa ni moom dañ ko fi daal di waaye ñu wax ñu ñàkk a wax suñu kàddu yi sant mooy sant lañu ci am lii te ñu ngi ñaan nga yàgg fii tamit loolu